Assalamualaikum wa rahmatullah asalaamaaleykum waa Senegal ak domi senegal ak fep fi ngeen manti nek ci adina bi li moy sunu ñetteli episode bi nga xamne consacrer nañ ko ci tuerie ya amone ci forêt classée bu bofa ah bobo ak léegi nak ah, ñaari at ak lu top juroom benn weer amna le 6 janvier 2018 bi ngeen ni fàttali rayon nañu lu mat fukki nit ak ñent ña amone demone ci àll bi uti ay bande ah bobo ak léegi comme ni ngeen ko xamé gendarmerie nationale bi ubbi une enquête japp na ci ñaari fuk nit ak juróom-benn muy 26 personnes parmi ces personnes amoon na euh, koo xam 81 ans muy chef de village bu Kota. comme ni ngeen koy gisee lu mat ñaari fukki nit ñu ñu jàpp dugal leen ci kaso bi tuumaal leen euh, reye yu metti Touba Toubacouta lañu dëkk Touba pour ñi nga ñi ko xamul euh, benn dëkk bu ndaw la bu nekk Casamance à peu près 7 à 10 km de Ziguinchor. te it ñu leen xamal ni euh, contrairement à li nga xam ne moom la ñu yëgal àddina bi yëpp rey yi masuta am ca Boffa Bayotte rey yi fi mu amee mooy dans la forêt classée de bayot Est fii rey yi am ak dëkk bi Toubacouta lu mat onze kilomètres dox na si donc lan moo tax gannaaw bi forêt classée yi am na dëkk yu bëri yu ko gën a wër wala yu ko gën a jege lan moo tax ñu bàyyi fa nit ñooñu porter accusation wala fik def fixation ci li nga xamne moy mooy Toubacouta ba ñoo japp seen goor yi yeb dugal len ci kasso yi ah ñaari yëf yu tout simple la parce que dafa am ay coïncidence yi nga xamne ay piste yo xamne ñoo daal di yebal gendarme yi ñu ñu ci dëkku Toubacouta ñu fàttali ni euh, rescapé yi nga xamne ñoo njëkk a ci àll bi nee ñu bi len ñi ñu jappé di len di di len comment bala ñu ray seen bala ñu commencé tirer seen kaw ak di ray dañ leen ne est-ce que yéen a amoon problème ak sunu booy yi fële ca Kouta. donc automatiquement le nom du village de Kouta est apparu mais deuxième chose gendarme yi fàttali woon nañ ni waa Toubacouta amoon nañu problème ak kenn koo xam ne dafa ñëwoon dagg si bant ba euh, yëf yi mujjee tribunal ñu condamné ñeenti doom Touba Toubacouta tëj leen lu mat weeru kaso booba décembre 2017 la woon. xale bu góor bi tudd Malick Diarra te muy malien d'origine moo ñëwoon dugg ci bant ci àll bi di dagg bant comme ni mu ko daan defee ak waa Toubacouta sax la daan àndal doon ko def mais waa Toubacouta ci diggante bi 2017 ñoom changé nañu ñoom ñi nga xam ne ñoo daan dagg bant nee nañu tey ñoom ñoo nekk protecteur de la forêt gannaaw bi ñu amee waxtaan ak li ñuy wax la plateforme des femmes pour la paix ñoo leen initié ci protection de l' environnement mais ñoom dañu jëloon tellement au sérieux seen seen liggéey bu bees ba tax képp ku ñu gisati ngay dem tàgg bant bi dañuy jotee ak yow noonu lañ jotee ak Malick Jara ñu daal di dóor Malick Jara euh, Malick Jara porté plainte ñu tëj leen lu mat euh, weeri kaso ñu ngi leen di bàyyi en début euh, janvier fin décembre 2017 donc bu ñu leen ne tey reye yi am na nee nañ leen yéen a amoon problème ak suñu booy yi nga xam ne ñoo nekk Toubacouta automatiquement gendarmerie xalaat na ni li piste la tax na ñu dem arrêté lu mat ñaar fukki nit ak li topp ca village ba ca Toubacouta mais ku xam euh, sociologie fofu ak ku def enquête bu sérieuse li nga gis ni problème yu bari amna na la tax kenn si ku ñu ne mom la ñu njëkk jàpp muy le chef Seyni Sané Seyni Sané euh, amna 81 quatre-vingt-un ans euh, bokk ci Seyni Sané depuis 1992 dëkkul Touba Toubacouta lan mako waral

boo fa mag ñu bare ñu nu jàppoon ba ci mpaak dañu ni ñoom chef Seyni Sané muy chef de village bu Toubacouta dañu xalaat ni kooku moom moo leen dénoncé ca gendarmerie ba moo leen dénoncé ci militaire yi moom moo ne ñoom ay rebelle lañu ba tax ñu jàpp ñooñu garder haine boo xam ne kenn mënu la wax tax na euh, même gannaaw bi ni ñu ñibbisee en deux mille neuf cent chef Seyni Sané ñemeetul ñibbi si Toubacouta parce que xalat na ne bu ñëwee dinañ ko ray il est resté à Ziguinchor ñaareelu yëf yi na ci mag yooyu nga xam ne nañ leen kaso kenn ku tuddu Ibou Badji tay mag la mu ci village Toubacouta donc Seyni Sané mosuta ñibbi si malgré que sur les papiers moom moy chef de village bu Toubacouta xamatul dara li xew Toubacouta Toubacouta secrétaire général bu Toubacouta bu tuddu Ibou Sané Nafout Nafaout mom moy ki nga xamné moy en quelque sorte le chef de village de substitution kérok chef 81 ans ma encore fuk ya, ak ben un ko wowe euh, kérok gendarmerie ba laj ko dafa la man xamatuma dara li xew su ngeen bëggé xam la xew kota sama secrétaire général muy Nafaout man xamatuma bokk na ci kii nga xam ne mu njëkk faatu ca prison euh, ca dakaar ndax tuumaal yooyu mais comme ni ma leen ko waxee nit koo xam ne am na réputation bu mel noonu nit koo xam ne ñemewuuta dellu Toubacouta parce que xalaat na ni bu demee dinañ ko fàtt parce que ba léegi la haine ak la la tradition ak la tradition ak li ñu nit ñi di waxante loolu ñuy rumoon bët ba léegi mu ngi fa nit ñaa ngi koy xoolee bët boobu

incohérence bi moy defe naa ni doomi aadama bu nek normalement constitué bés bu la yalla maye ba nga dem am 81 ans defe naa ni nga gëna a ke adina tal nga lenen lu dul di fat ay bakkan da ngay xalaat sa diggante sa dajé ak sa borom ñettel yëf bla parce que si ñu ñu jàpp seeni sané ñu koy jappalé ak ñaari domam muy Aliou Sané ak Landing Sané bi ñu ne terama defe naa ni mag bu bon wala nga bëgg a carrière criminelle à 81 ans do jël say ñaari dom di and ak ñom di dem di ray ay nit bu troisième incohérence quatrième incohérence maa ngi leen di wax si ben ni fi rayé yi am ak dëkku Toubacouta mat na presque 11 km té opération bi gaay yi def defe naa ni opération la bo xamné ku am fit opération ku ku min deret opération ku ñemeek lu bon moko mëna def té it boo naree dem di ko def ci Allah bu tollu noonu ben commando du jël and ak mag bu 81 ans pour ñu dem commettre lool nga xamné c'est presque à 11 km de du village bo la ci wax na len ni depuis 1992 Seyni Sané ci siwul ci dëkk bi ma ngi di wax ni amna ci mag yi nga xamné jappon nañ len 1992 ben waa ju Ibou Badji mag la tey Ibou Badji batay il est resté avec l'idée que Seyni Sané moo dénoncé mais ce qui est extraordinaire dans l'affaire dans ce dans la gestion de ce dossier c'est que dañu jàppale ñaari euh Ibou Badji ñaari domam yi nga xamné ay cheikh lañu Ousseynou ak Assane Badji ñi nga xamné ne papa tëjul nañ ko ba pratiquement commencé on ñak ay beutam té ñuy né Seyni Sané mo len bolé won defe naa ni man sama doom du ànd ak sama noon dem di préparer benn cours te sama noon xam nañu sama doom xam nañ ni noon boobu lu mu xam mu siiw mu trop quatrième wala cinquième incohérence bu bu bu ci ci yëf yi su ma jógee si chef Ibou Sané ma fàttali leen ni malgré tout ces incohérences jël nañu Ibou Sané euh, jël nañu chef Seyni Sané dugal ko ci kaso bi ba mu dee foofu ca ca ca Dakar beneen incohérence bi Moy ki tudd mfalli Diémé mfalli Diémé fin 2016 dafa andone ak jeune kouta parce que ñom dañu bokk ci odeka bu Niassia bu ngi football Niassia lañ bokk amna yoon bo xam moy yoon bobu ma leen di wax bi jaar nonu dem ci all bi ñu rayé nit ñi bu ñu nekkee ak seen équipe bu nawetaan dootuñu ñu mëna jaaré yoon bobu surtout en période hivernale kenn du fa jaar ak ay auto wala yooyu donc dañuy seen équipe de football bu na dem football Niassia day contourner yoon pour dem jouer seen match nawetaan comme village ba amul liggéey te amuñu moyen ci àll bi lañ daan dem uti jaay ko protecteur de la nature ci noonu lañ demoon benn uti ay bant yi leen fa ni ci ñi non seulement Mfally euh, Mfally Diémé mais ñu ngi doon ànd ak ki nga xamné moy Malik Malick mi nga xamné mom la gaay yi mësuñu dóor keroog bi ñu demee uti seen bi sen euh, sen sen bant yi ci all bi fa leen rebelles yi fekk simmi leen yaram yi neen taati neen ma fàttali leen ni Mfally Diémé mu ngi juddu en 1967 donc do xalé 50 et quelque ans mu ngi jëm ci soixante ans rebelle yi jàpp leen ci àll bi simi leen yaram yi neen taati neen te mu ngi ak ñaari ñaari ya muy aruna ak seeku jaaw boole ko ak ay doomam boole ko ak xariti ay doomam ñu simi ban humiliation moo gën a bon ke jàpp papa simiko ko yaram yi neen taati neen dóor ko ci kanamu ay doomam ak ay ay ban humiliation moo ko gën metti keroog bi ñu leen ko defee ñu bàyyi leen ci àll bi kenn ci xale yi moo daw si ñëw ci dëkk ba fekk jigéen ñi wax leen la xew ci àll bi mu leen si mii ñu góor ñi ñëpp dóor nañ leen ba ñuy nàcc te rébellier ko def waa dëkk ba jigéen ñi ak benn xale bu góor ñu daal di dem ci poste de gen poste de militaire bi nekk ci Toubacouta wax leen ko pour militaire yi dimbali leen dem récupérer corps yi dem récupérer nit ñi militaire yi xamal leen ne sans ordre mënuñu dem keroog jigéenu Toubacouta yi gàcce nga laama jigéen ñooñu ñoom ñoo jël porté volontaire jël sër yi tegale sër yi ne ñun dinañu dugg ci àll bi dem jëli suñuy góor même bu ñu rebelle yi jàpp rey nañ ñu rey ñun ñëpp jigéen ñooñu ñoo dem ba ñuy ba ñuy jeexal faro yi ñu seen góor ñi fële daal di jël simmi seen sër yi ñu tegaloo jox benn kenn ci xale góor yi mu daw dem ndaje ak góor ñi jox leen pour ñu mën a nëbb seen awra mën a ñibbisi si dëkk bi muy laaj bu tout simple tey euh, Mfali nous MFDC parce que parmi les chefs d'incubation, il y a l'association de malfaiteurs, il y a, il a, il y a assassinat, détention d'armes sans autorisation, ainsi de suite, ainsi de suite. Madeleine Est-ce que les rebelles, rebelles, nous continuer encore en d'autres termes est ce que ab gendarme ñu tase ak ab gendarme door ko def ko yaram ngeen taat neen simiko koku continuer ñom ñep ñu nekk coow la jib parce que gis nañ ko exemple bu ndaw ay gendarme bi ñu jotee ak ben policier ci Touba ci ëlëk sa brigade Touba Belel yëpp changer nañ ko déplacer nañ leen ñu def sen chef arrêt de rigueur kon muy lo xamné lu lu lu xel mënuta nangu la yemuñu ci lool benen affaire a ngi ni bi nga xamné dafa moo ni

Toubacouta keroog le 6 janvier dafa amoon mag bu gaañu woon ci dëkk bi mu ngi tudd Fane euh, Fane Diédhiou Fane Diédhiou moo gaañu woon ca dëkk ba dëkk ba amul dëj ñépp dëkk yu ndaw yu mel noonu bu amee dëj dëkk ba ay génn ku ñëw ak ku ñëwul waa dëkk ba danay xam ni diw ñëw na wala diw ñëwut keroog dëkk ba yëpp ngi taxaw ci dëj ba. kenn rek mo fa nekkoon muy Jean Christophe Diatta moom rek moo nekkoloon ci le 6 janvier ci dëkk boobu di Toubacouta ci témoignage yu ñu am yëpp d'ailleurs yan témoins nee nañ ma bi ñu laajee famille am nee nañu dafa tukki le 6 janvier bi bali di sab bi waa dëkk bi yëpp taxawee Jean Christophe Diatta rek moo nekkul ci dëkk bi le lendemain le 7 janvier lay doogu ñëwaat ci dëkk bi après expliqué woon naa leen ci épisode numéro 2.

Les combattants du MFDC dans les années 2000 2006 Abdoulaye Wade commencé un processus de retour à la paix Si je ci jeunes yi nga Abdoulaye Wade euh, ont ci famille convaincre les gens de déposer les armes Nous n'y ci dans la brousse ils sont considérés comme des déserteurs bu vous ne la désertion ci armée moy dañ lay bo bo baye armée nga daw dañ lay japp ci bi ci all bi ay combat ay ay euh, mouvement de libération yu melni MFDC bu ñu jappé ben déserteur dañ fusillés. donc ñaar ñooñu muy Adama muy Cheikh Oumar ñooñu musuñu jël ko ci all bi parce que ñooñu ay cible de choix la leen ñooñu mënuñu nous sommes du MFDC nous ñu daw MFDC nous la ñu boole tey seen lobby yëpp présenté leen comme membre du MFDC muy loo xam ne lu kenn mënul xalaat la boole ci euh, Adama xaw ndax tey am suivi médical wala mais nit la boo depuis quelques années commencé na am ay problème nous avons une opportunité dem jàkkaarloo kenn ki nga xam ne ci ay magam lañu dossier bi il y a deux semaines magam googu génn na ñu di ay di ñaanal mu aljana euh, li mooy li nga xam ko deuxième partie wu dossier bi ay victimes du MFDC ay nit yoo xam ne dañu mës a am problème ak MFDC lan ñu jàppal tey lu ñu leen comme ay rebelle mais dañ ñu boole encore ñoo xam ne ay ennemis lañu boole leen dans un même lot chef Seyni Sané mi nga xam ne gaañu noo ca prison ba comme ni ma leen ko waxee nit la koo xam ne mësuta ñemee dellu ci Toubacouta parce que dafay ragal ay vengeance kooku tey lan ñu présenté comme un rebelle ba mu dee ci àll bi alors que moom mooy waa dëkk ba yépp ak dëkk yi ko wër moom la ñu soupçonné woon que moom moo doon le collaborateur de l'armée et de la gendarmerie Seyni Sané bi ñu ko dugalee ci kaso bi jabaram daf ko naqarlu ba mu mujjee faatu ci ginnaawam nouvelle boobu bokk na ci li gën a dégradé état wu santé wu bi ba moom it mu gaañu ci kaso bi amna ño xamné ñu ngi ci dëkk yooyu euh Bouro Fay et consort ño xamné ba légui garde nañu équipe euh esprit vengeance né nañu Yalla atte mom mo ñu duggal demb Yalla ngi ni fayal nañu tay mais ñun puisque lool nekul sunu démarche ñu bëgg attirer attention ni dafa am ay incohérence yu bare une enquête woné ko ñu war ko jox à l'information du public le public seul qui décidera de ce qu'il pensera de cette affaire tay ji moy dernier jour audition euh, premier tour bu les présumés coupables de la tuerie de Boffa ganao Omar Ampoy Bodian et René Capain Bassène épisode yu di deneen leen wax kuy ne Capain Bassène ak kan mooy Ampoy Bodian ak naka la leen jëlee dugal leen ci dossier bi jërëjëf.